Malika actuellement donc euh, am baykat yi seet si ñoo xam ne dañu liggéey si wàllu blé bi ah bi nag ku ko wax xam naa ni ñu bari yaakaar nañ ne Sénégal blé mënu fi dox waaye def naa ku gis tool yi nga xam ne blé mën na dox Sénégal mën na dox surtout région Dakar parce que Dakar chance bi mu am mooy euh, température yi ndax blé dafa laaj température bu xaw sedd tuuti te blé aussi avantage bi mooy laajul ndox mu bari comme yenn culture comme ceeb ni ñu koy yenn euh, variété ceeb donc blé donc mën nañ ko bayee fii cycle bi guddul maanaam euh, xeetu mbay la boo xam ne presque ñetti weer mu ñor donc loolu dafa am solo waaye li tax mu gën a am solo mooy maanaam Sénégal dañu importer lu toll cent 800000 tonnes si wàllu blé ak mutër donc loolu mu doon koom-koom boo xam ne dafay dem si bitim réew te loolu euh, gis nañ ne blé bi war nañ ko mën a bay donc mbéyum dër bi il va falloir que ñu diversifier mën nga def sa bële fii def sa poivron fii def sa xaal fii comme ni ñu ko gisee si tool yi parce que bële comme ni ñu ko waxee euh, Sénégal moom la ñuy dundee ndax mburu boo ko bëggee xañ sénégalais dina xaw a jafe donc kon nag il faut que loolu ñuy jëndee bitim réew ah ñu fexe ba ni ñu ko suñu béykat yi mën ko intégré te yaakaar naa jafewul parce que tool bi ñu taxaw ni gis nañ ne blé bi ñoo xam donc mu doon loo xam ne war nañ ko mën a gën a yaatal bu ko Sénégal mu ngi wax si moom si boppam si wàllu dund donc def naa lii def si bokk nañuy dugalee ceeb nañu noonu la ñu war a dugalee blé dugal ak leneen ak leneen kon nag euh, programme bi ministère agriculture moo ko moo joxe jiw yi jiw dañ koy joxe gratuitement te tamit gis nañ ne ci perspective pour mbay mi gën a yaatu il faut que ñu xool engrais bi nu ñu ko mën a gën a joxee baykat yi même bu ñu koy jox gratuitement parce que yooyu bokk na liy wàññi maanaam charge de production yi ndax bu bi charge yi baree rek maanaam rentabilité bi mën na xaw am jafe comme programme bu bees la ministère bi dañuy xalaat ne bu ñu gën a yokk seen loxo ci côté équipement jàppale leen ci wàllu goutte à baykat yi am solaire.